FM demal leen ca Mayak Dionda dëkku soxna Adji saar soxna Aminata Goudia bi jël gaal wutali fa ñoom waxtaan ak njaboot gi ku ne ak na ko gisee maam ja ba ci ndijaay ya ñu teewlu reportage bi.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 mais xamuñ ko si fen ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci dëkk yi di Maya ak itam Jirnda taxaw nañu temm ngir jàppale ki nga xam ni moom moo di seeni doom ñi ngi sàkku ci nguur gi ñu gën a yokk karangeem ndax fi mu ne dara wóoratul Aminata Goudia bi Fatick RFM jërëjëf soxna Aminata ñu del si Ndakaar ak reportage yu Abdou Diouf Junior ak kalam yi ko war a mi ndax mburu mi la jagleel